ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital nuyoo bi si turu xalif général des Mourides di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké saa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. waaye itam di nuyu ki nga xamante ni mooy xalif général des Baye Fall saa yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di nuyu mbooloo mi fi teew yépp di leen wax ax la man saxlan fii si daara ji boo leen gisee suñu teewaay fii tey. muy mel ne ngont yi nga xamante ne yàgg nañ ko amal si daara yi nga xamante ne ñoo composé fédération bi di Majmahun Nurayni fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem élèves ak étudiants fii si Thiès ñu yàgg ko amal fa seeni see waxtaan ak suñu mbokk soxna yi muy comportement soxna si daara ji ak si hors daara ji bu ñu noppee daal di àndil li nga xamante ne mooy njàngalem sangu set bi nga xam ne soxna jaara moo ko war a def mais laata boobu dinañ am ay contribution si biir ci wàllum julli bi ak euh, wàllum euh, muuru bi kon soxna Xadi bismillah am yakumil mustafa fil baraya samadi sellal nag mën nañ ko jëlee ci maanaam ngay muuru ngay julli ngay woor maanaam nekkul rek ni bu ma ñëwee daara damaa war a sol lu jot damaa war a muuru damaa war a sellal que bu ma génnee damaa war a nekk si leneen déedéet parce que suñu boroom nee na ci alxuraan yaa nis yaa nisaayu nabi lastunna ka ahadin mina indi inni na ne yéen jigéen rasulullaay na ngeen xam ne bokkoo leen beneen jigéen ñi nga xam ne lu leen neex la ñuy waxee nu leen neex la ñuy soloo wala fu leen neex la ñuy dem jigéenu lislaam dafa war di sellal à chaque instant du romb rek góor bu ko romb mu war a mën a am xel muy dem mu muy dem mu yóbbu si moom wala leneen lu muy xalaat si moom mais dafa war di sellal di nëbb ay atuuram te tamit sellal mën nañ koo ràññee si ñun ko muuraay gii parce que ci bari damay dégg ñu naan muuraay da bu heure bu ma ko sentir laa koy def wala kon ñu naan su ma ko su jotee rek day yomb fu ma waree muuru rek damay muuru comme nañ koy def te xamuñu ne muuraay obligation la bu ñu suñu boroom teg mu ngi wax ci suratul ahzab naan yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna mu ne waxal yonent bi salaay salaam waxal sa soxna yi ak sa doom yi ak yeneen jigéen lislaam nga ne leen ñuy jël seen kaala yi di ko wàcce te suñu boroom bi mu ñu sant loolu dara taxul lu dul yéefar yi di bañ di ñu yab wala ñu ñuy romb di am ñu xel bu muy wàcce ci bu bu ñuy am su ñun waaye naan xolal jigéen gee ni mu mel xoolal ni muy doxee loolu dong la ñu bëgg a waaye du comme li islamophobie di wax léegi naan yàlla dafa jël jigéen bëgg ko limiter bëgg ko muurloo juste parce que daf ko tere épanouir non non au contraire dafa ñu bëgg a protéger moo tax mu ñuy muurloo. su Serigne Touba aussi mi ngi waxaat ci jawaabu soxna Penda Diop wa asbiti siddixa maxal ixlaas yi mu ne ko nanga sax ci dëggu ak sellal dëggu googu noonu lu am solo la parce que dëggu du ne rek damaa war a ñëw damay wax dëgg lii dëgg la dama koy wax mais dëgg boo koy wax dangaa am war a am kersa goo ko waxee ndax am na yenn dëgg yoo xam ne doo ñëw tëb tëb rek nga wax ko te suñu te tamit dëggu mooy comme ma ñëw tey jii loo xam ne man duma ko def ma la koy digal ma naan la kat lii nii ñu ne nga ne waaw nga ne ñëw ne lii damaa dal ma ne la ah bu doon man la de nii laa koy defee wala na laa koy defee doo ko defee noonu nit li nga xam ne yow moo nekk si yow moom nga koy wax moo tax mu wax ci suratul asri ne wala asr mu waat ci jamono ci tàkkusaan ne ko innal insaana la fii xusri innal lazina amanu wa amilu saalihaat watawaasaw bil xaq watawaasaw bis sabri mu ne ko wala maa ngi waat ci jamono innal insaana la fii xusri mu ne ko nit ñi de perte ñeel na leen mu ne innal lazina amadu sauf ña nga xam ne mooy ñi gëm ñi nga xam ne ñoom gëm nañ leen moom perte googu noonu yàlla mën nañ la seen musal mu ne watawaa innal lazina amadu wa amilu saalihaati mu ne ak ñiy jëf-jëf ju yiw ji watawaasaw bi xaq watawaasaw bi watawaasaw bi sabri mooy ñiy dëgg la dëgg ak ñiy digle muñ beneen bi mooy ngay def à chaque fois ngay rafet njort ci sa moroomu jullit te ngay rafet njort tamit ci sa boroom ndax sëñ Touba waxaat na ko tamit jawaabu soxna benn Diop ba xasida gi jeexee mu ne ko fanala mi na nga xam ne laa yan ju du mucc axadun kenn min xasaabillaahi ci mbugul ci mbugalum yàlla xattaa at yatruka feeg bàll bàyyiwul arbatachiaa ñeenti mbir yi mooy alkaziba muy wax lu dul dëgg war riyaa war riyaa ak ak rëy wasu war riyaa wal ak nay ak nay ci sa alal wasu azanni ak ñaaw njort ci sa boroom mbaa ngay ñaaw njort ci sa boroom moroom nga jàpp ne nit kii kat lu mu def mbaa baat bu mu wax rekk man maa tax mu wax ko walla man maa tax mu def ko te ñaaw njort ci sa boroom mi ngi ñëwee si boo ñëwee tey jii nii yenn saa yi nit ñi dañ naan yenn bàkkaar yi su ma ko dee def suñu borom du yàgg-yàgg ba mu baal la te yonent bi salaay salaam nee na dangeen war di rafet njort sa borom ndax sa borom mooy borom yërmande gu kawe gi kenn ëpp ko yërmande ci kaw suuf donc chaque jour dañu war di rafet njort ci moom kon loolu war na tax ñu bàyyi wax lu dul dëgg ak bàyyi jëw jëw mooy comme ni ko tàmmee defee li waxee léegi rek di ko di ko actualiser naan comme ay kaa kaay ma kaala kaay ma kaala lii kaa leen lu dul jëw sa moroomu jullit wax sa moroomu jullit loo xam ne du loolu nit ñi léegi loolu lañ ko jàppee te loolu dara gënu koo bon ndax ëllëg yow mal xiyaam sa moroom boobu nga doon jëw di nga taxaw la yow ak moom soit day dangay jël ay say jëf yu baax jox ko soit moom mu jël say ba ay baakaaram dolli dolli la te loolu yàlla nañ ci yàlla musal donc nañuy fexe buñ dee kaa ñuy kaa ci soxna yu baax yi comme ci ay soxna jaara soxna yonent bi ñoom Zeynab Bintu Jaxs soxna Fatimatu parce que loolu boo nekkee ci yoonu sellal nekk ci yoonu yàlla loolu dalay permettre nga xam ni kat man mii nii maa ngi ci yoon bu baax bi parce que boo xoolee ñoon ñu daan doxalee yow sa xel day dal ak li leen yàlla ak li leen yàlla promettre ci alxuraan yëpp promettre na leen aljana donc boo dee boo dee lire seen ay histoire ngeen di toog di waxtaan ci ñoom seen xel dina gën a daal wasalaamaaleykum wa maa ngi tuub nag ci kàddu yi bu baax ñu xam ne lépp lu fi dëng rek suñu jëmm ji la te lépp luy jub rek yàlla suñu borom. jërëjëf euh, soxna Xadi kàddu yi dafa mel ne matale nga ko xam naa dañuy daal di bàyyi soxna Awa Ciss rek mu daal ci waxtaan ak yéen tuuti bisimilah. aouzu billahi samiil alim min acheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaar di baalu ñëpp àkk te di sàkku baal ci yéen tey nag ñu daje woon fi pour waxtaanee thème suñ jëwriñ soxna Ndeye Sax wax na ko jigéen nu mu war comportoo ci biir ci biir daara ji ak ak hors daara ji waxtaan bi nag xam naa dama koy tijjee euh, sam benn seydaa mu ngi daan wax jigéen bu njëkk daawul dogal amul cëram xanaa di gas di suul di jaay moo doon cëram islaam ma ñëw jox ko cëram dafal ko daat koy teral yëkkati ko ñu naw ko loolu nag day wane ne jigéen am na benn place bu importante ci euh, société bi occidentaux yi gëmloon nañu que ne boo solee lu jot wala nga muuru wala nga sell wala bu nit wala bu di wax ak yow nga wàccee sa kàddu dañ naan la yow cher nga xamoo dara wala nekkoo ci temps bi et te yaakaar naa ne loolu na bu nekk war na war na war na xam gëddam ndax yàlla kat jigéen la jël gis nga yàlla bu muy bind euh, suñu maam aadama nee nañ ci naaj bi la ko bindee or àjjana waaye gis nga ba mu demee ba war a roof jigéen ci biiram da koo jël na ko duggal ci biir àjjana ndax kii ma lay jox kat dafa bari ay charge xam ngeen yàlla kon fa mu teg jigéen sori na mu ñëwaat jigéen mooy ëmb mu ngi naan ci alxuraan wasaynal insaana bi waalidayhi ihsaana xamalatuhu ummuhu kurhan wa wadaatuhu kurhan wa xamluhu wa fisaaluhu thalaathuuna shahran yàllaa ngi naa ci alxuraan jigéen mooy ëmb mooy nàmpal mooy yar donte ni société bi sax jigéen bi wàllum yar bi xaw nañ cee bàyyi seen loxo ndax euh, bu fi nit toogee doom ji di def ay dégâts danaan ko xaaral ba sa papa ñëw day dégager ay responsabilité am mu demaat ba ba ci kanam yàlla sax euh, tuddee na jigéen saar muy sóoratu nisaa xam naa waxtaan bi dañ koy dañ koy tijjee ci benn tomb bu am importance muy muy jigéen warta bàyyi boppam gis ngeen euh, occidentaux yi gëm gëm gëmloo nañu ba ba indi fi ay mèches ay cheveux et mais boo xoolee ba ci biir surtout bu fekkee na nga jàng science wala yenn yi di nga xam ne yàlla daf ñu bëggoon lu baax gis ngeen rayon du soleil yi nii boo muuruwul baaxul ci sa bopp bi te gis nga boo demee ba jàng ko nag nga koy gën a xam boo boo te en plus boo ciy wax ak koo xam ne gëmul diine wala du muuru danaa la non non ñi muuru ñoo fi gën a ñoo fi gën a kii ñoo fi gën a bandi ñoo fi gën a fi ndax loolu mooy seen mooy seen argument en fait amuñu amuñu leen lu ñu wax ndax te yaakaar naa am fit weesuwul yàlla ne ci alquran dem ba ci yonent bi ne ko yaa ay yaa ayyuhan nabi qul li azwaajika wa banaatika wa nisaai lmuminin yudniina alayhinna min jalaabibihinna yàlla kuma jékkiwul rek commencé ci jigéen jullit ñi da ko ne waxal say soxna ak say doom yu jigéen xam ngeen ne ko épargne wul kenn ki commencé ci ci ci euh, soxnaam ak ay doomu jigéenam ne leen wax leen ñuy muuru di muur seen cër yi ci seen bopp yi ba si seen dojoor yi ba pare waat yonent bi ne ko almaratu kulluha awra ma ada wajiha wa kaffayha jigéen léppam awra la ba mu des xar kanamam ak ay tenkam donc ngalawaay nañu xam nañu xam suñu bopp ñun soxna yi may commencé ci man sax donte ne seytaane dafa bari doole trop ndax moom ak yàlla dañoo diggante ay baat da koo ne yàlla da koo ne man de am na ay jaam yoo xam ne dinaa leen defar incha allah ba seytaan di mun ci ñoom dara mu ne leen bu fekkee it cent lañ jàppal yi ñoo ciy baax ndax ñeneen ñëpp dinaa dugg seen xol yi yàq ko te te yaakaar naa loolu mu ngi waaj a am seytaan moom nañu tënk nañu ba xamatuñu lan moo baax ak lan moo ba benn bi ñuy wax ci euh, ngistal ariya muy loo xam ne ñu ji jigéen ñu bari léegi dañ ko dañ dañ ko taamu même boo man mii bu ma solee yére sax te si na bu ma dugal ko estati du ma am du ma am jàmm il faut mu du wax externe pour ñëpp gis ko pour mu wan sama xarit yi que ne man kat sol naa lii wala tey dem naa fii wala am naa lii may njëkkee ci sama bopp nañ bàyyiwaat xel bu baax suñu bopp xam jigéen fan la ko yàlla jëlee ak jigéen fan la ko yàlla indi ak dénkaane yi ne ci yi ne ci moom beneen point bi nag mu doon euh, ñàkk a wax dëgg soxna Xadi wax na ko sànq soxna yu baari léegi euh, kàddu ñàkk a wax dëgg daal dañ ko jàppee lu lu yomb dangay ñëw ci nit bëgg yàq deru jàmbur dina tax sax nga créer ko waxal ko loo xam ne amul pour pour bu ëllëgee xëy na it mu mu naw la ci wala mu mu mu yàq la ci bu ñuy def dara wala bu ñu koy wax na doon li nga xam ne moo sax suñu xol yi ndax mënuñu ñëw ci daara ji nga ne nga tàggoo cinq heures tey kat daayira laa nga sol robe bu gudd sol kol euh, def col bu gudd te bu fekkee dangay dem école it booy dem ci école it dangay ngay sol lu gàtt wala nga sol tubéy walla nga sol leneen nga sol tubéy wala nga sol leneen te kat euh, yaakaar naa loolu lépp jaru ko ndax loolu nëbb suñu borom moom yaakaar naa waroo ko nëbb benn mbindeef boo tasee ak jëwri nit ni ngay comporté woo ak moom ak boo génnee hors daara ji ni nga war a comporté woo benn benn benn jikko la war a doon wala benn melokaan ñu wax ci it euh, jigéen nu muy fonkee diine wam damay gis soxna yu baari boo leen laajee ñoom dañuy glorifié wu sax naan la mënuma lire à la français laa jàng ñëpp jàng nañ français mais avant français diine ba pare euh, gis ngeen soxna yu baax yi soxna Xadija hmm? ay soxna bu ñu daan ñëw ci yonent bi di di ko laaj naan ko question bi wala lii ak lii xamuñu ko daleen naan dem leen ci soxna Xadijatu ndax moom amaana moom moo secondé yonent bi lépp lu lu ñu war a xam ci jigéen rek xamoon na ko donc jigéen dafa war a xam diine woom xam ay limitam xam diine lan la ko may mu def ak diine lan la ko tere boo jógee ci loolu ba pare ñu ñu fonk julli ndax jigéen ñu baari daa mel dañoo désabonné wu ci julli gi yem saa yi ngeen baal ma da ngay gis koo xam ne day gis ay ay réglam tey jii cinq jour mu pare mais day continuer mën na continuer bu mois bi jeex boo ko laajee rek mu neel pareegu ma wala pour mu jug sangu sax seytaan yi da koy dugg xanaa xamoo ne jigéen bu gisee ay règle seytaan da koy dugg moo tax ñu ne même boo gisee say règle sax warta tax nga nga toog ni doo tudd yàlla may nañ la nga tudd yàlla di jàng yenn bayit yi wala di jàng alxuraan sans que nga nga yor sans nga yor xasida yi wala nga yor alxuraan bi ndax loolu boo koy def kat di nga gën a renforcer sa diine ndax moment boobu noonu moment de faiblesse la seytaan danaan xaaral ma gaaw profité dugg ci moom donc loolu may nañ ko may nañ ko soxna yi. kenn ku nekk xam diine woom jàng ko jàng alxuraan xam li yàlla wax xanaa xamoo leen ni ñi gis nga ñi nga xam ne ñoo ñoo njëkkee ci daara ji boo leen boo leen demee ci école bi ñu njëkkee ci daara ji seen xel yi dañuy gën a ubbeeku ndax boo jàppal ne boo demee école rek nga jàng alxuraan ba pare nga dem école te sa xel ubbeekuwul ci yow la ndax eh, eh, gis ngeen eh, ku jàng si ku jàng science boo xoolee ba ci biir alxuraan li science wax yëpp ci ci ci alxuraan la ko tibbee ngeen xam ne alxuraan la mooy lépp ñu wàccee suñu bopp xam lan moo ñuy xaar xam jigéen yàlla lan la ko tere ak jigéen lan la ko yàlla yàlla digal ñu waxaat nag ci li nga xam ne mooy rëy jigéen ñu bay dañoo rëy te yaakaar naa rëy warul kenn ndax yàlla daane xulillahumma malikal mulki tutil tutil mulka man tasha yàlla nee na moom moo yor nguur donc moom moo yor rëy moom moo koy jox ku nekk nguur moom moo koy jox ku nekk xam ngeen ki nga xam ne moom moo bind nit bu ko neexoon mu wàccee la tey lii def la mala wala mu def la suuf te defu ko te li yàlla bind yëpp nit li ci gën a fonk nag doomu aadama ndax doomu aadama rek ngay gis ñuy rey mala ndax moom tabaski bu jotee ñëpp dañuy jël ay xaaj di leen rey ngir bëggal doomu aadama ngeen xam ne kooku fonk na doomu aadama bu baax donc ñun nañ gën a xamaat suñu bopp xam lan moo ñuy xaar xam suñu diine loo loo xamul bul bul bul am kersa dem ba ci sa moroom laaj ko donc nag nañ yàlla gën a jubal ñu xam suñu bopp xam ne ay ay responsabilités yu bari lañ yàlla jox ci diine ji wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu xam naa kàddu yi foofu laa koy daanelee comme waxtu bi dañoo xoj jaajëf soxna Awa dafa mel ne kàddu yi li ci ëpp leer na kon xam naa damay daal di appuyer si li ngeen xaw a wax rek muy mel ne aaya bi nga xamante ni yàlla wax na ko yonent bi jarul ma leen si ma siy ñëwaat mu yaa ayyuhal nabi kulli azwaajika bi yàlla mu ngi naan yonent bi waxal sa say soxna ak sa njaboot ñu muuru euh, muuru dafa nekk loo xamante ne aussi du sa simple plaisir ordre bu yàlla joxe la comme murit gi li ñu naan toppal ndigal loolu ndigal la soo ko deful rekk danga wàcc ndigal mu nekk aussi loo xam ne boo ci nekkee dafa mel ne dangeen ko jàppee l'exception alors que ki mu ki mureeku c'est ça l'exception muuru c'est la donc nit ki dafay muuru nga gis ko ne ko hee yow ban seytaan moo la dugg alors que yow mi muree ko yow lañu waroon wax hee ndaw si nu mu def boppam bi nag àdduna suñ jugee foofu te yonent bi aussi dafa wax ne jigéen léppam awra la ba mu sa xar-xaru kanamam ak fenk loxoom te mi ngi naan muuru symbole personnalité jigéen la julli symbole gëm yàlla la te woor muñ ku muñ ku mën muñ dëgg moo ko mën ku mën woor rek muñkat nga bu dee dañu ñëw si li nga xamante ne mooy wàllu julli bi yàlla defe naa ne mi ngi naan euh, inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar defe naa loolu moom ñëpp war nañ ko xam julli dafa nekk loo xamante ne lien de communication la entre yow ak sa boroom kon ñu gën si bàyyi xel du da ñëw si daara ji rek nga gis nit ñi di julli nga julli nga dem seen kër wala nga génn oo daara ji nga newoo doo julli parce que bi nga nekkee si daara ji yaa ngi yaa ngi jullee ngistal ndax yaa ngi julli pour ñu gis la en yaa ngi julli ngir ni yow murit nga loolu loolu nañ nañ nañ ko nañ ko génnee teg ko ne bokkul si li nga xamante ne si yoonu murit la euh, kon xam naa dañu daal di leen bàyyi si dañu daal di teewlu seen seen question yi bàyyi soxna jaara sit bi mu ñëw def li nga xamante ne moom mooy ñàngalem sangu set ak soxna Xadi comme niñ leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi ci suñu deuxième partie bi nga xamante ne mooy ñàngalem sangu set xam naa damay daal di jox euh, suñu ñaari soxna yi rek ñu daal di nuyoo Euh, fësee ne see waxtaan ak yéen bisimilah soxna jaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ceenante bi sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ñu ngi nuyu bépp soxna bu fi teew euh, di tubaab bu baax ci kàddu yu ñu yëkkati te xam ni leen rek moo ñu fi tax a toog pour waxtaane leen li nga xamante ni moo di sangu farata bu ñu nee sangu farata nag ñu ko xam bari na ñëpp xam nañ sangu farata mooy sangu set wala ñu koy wax ci sangu ba di wax ci ngëne yi mu am ak euh, njariñ li muy mel ni sangu farata dafa bokk ci ngëm daa bokk ci jullit daa bokk ci lislaam sangu farata dafa bokk ci lislaam bokk ci ngëm mën naa wax ni ku setut mënoo jaamu yàlla ku setut mënoo dugg ci barab yu sell yi ku setut itam mënoo tee alxuraan ba xasida sëriñ Tuubaa di ko jàng kon damay wàcce foofu kàddu yi jox soxna Xadi mu leeralal leen yi nga xamante ne moo di fara faratay ak suñ sunnay sangu set bu ko defee ñu àggale ci cause yi wax lan mooy tax nit ki war a sangu set suñ paree ñu def démonstration wax leen ni lañuy sangoo ak bu yàqoo ni lañ koy defaree kon ma jox soxna Xadi kàddu yu mu leeralal leen farata yi ak sunna yi suñu xarit bisimilah. waa aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa radiyallahu an cheikhuna si ahmadou bamba xaadima rasul wa an jamian kullafaay wa ahli tariqi wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki soxna yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci anam bu gën a seele di leen ziar di leen baalu ak te di leen ko baal di tuubaat bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ne ni ñoo ngi ko fi waaj a yëkkati kon comme ni ko soxna jaara waxee rek tey ñu amoon yéen fastaan waxtaani ak yéen li nga xamante ne ni moo di sangu farata te sangu farata moom dafa nekk lu am am solo ci jullit bi ndaxte nit ki mënu jaamu yàlla li fekk setoo suñu borom balaa nga kaa jaamu faaw nga sell ba pare ndaxte suñu borom dafa tey te sell ngi wax ci aaya inna laaha tayyibun laa yaqbalu suñu borom dafa bëgg luy teey bëgg lu kon léegi kon euh, balaa ngaa jàmm suñu borom faaw nga sell ba pare buñ jógee ci loolu nag daal di ñëw si li nga xamante ne ni mooy farata yi ak sunna yi waxtaanee farata it moom dafay nekk lu war ndaxte balaa ngaa sangu set faaw war ngaa xam lan moo ci farata yi ak sunna yi ndaxte suñu borom moom sax dafa bëgg nit ki balaa nga koy jaamu faw nga xam ko ba pare. te loolu it bokk na ci li sëñ bi gënoon a bañ mooy ngay jaamu suñu boroom te xamoo ko mi ngi doon wax naan euh, araam na ci bépp mukallaf muy jëf benn jëf te xamul te xamul lan la ci sariya wax kon. ñu andil leen li nga xamante ne mooy farataay sangu set bu ñu nee farata nag dafa nekk loo xamante ne ni lu war la loo xamante ne si obligatoire te par par danga ko war a def ci sa jaamu yàlla mënu cee ñàkk farata yi nag juróom la bi si jiitu mooy yéene yéene nag xol moo koy def yéene xol a koy def nga yéene ci sa xol ni fas naa nga yéene ci sa xol ni fas ngaa set ci ay sobe wala janaaba ci eh, te jëmmi suñu boroom tax ndax suñu borom jëf yëpp yéene jëf yëpp yéene la koy fayee yéene la si jiital ndax nit ku nekk li nga yéene rek moom la la suñu borom di fayee mi wax ci moom suñu borom mi ngi wax ci aay sax naan innamal amaalu binniyaat wa innamal li kulli imri'in maa nawaa kon suñu borom yéene rek lay fayee kon nag nit ki ba laataa ngay jëf foo nga jiital yéene ba pare boobu moo nekkoon première bi mooy bi si jiitu mooy faratay boobu moo si jiitu farataay sangu set buñ demee ci ñaaree bi nag mooy ragu ragu nag buñ ko waxee maanaam dangay fexe bomb sa yaram nga nga nga bomb jër yëpp ndaxte sangu farata buñ ko waxee doo ñëw jël ndox mi rek bëgg kaa sa yaram bi noonu mais dangay fexe bomb sa yaram bi waaye fépp fooy bomb tamit nag ca defaay ndox bul jël loxo bi noonu rek di ko bombee kon loolu liñ ci sopp la mu nekkoon ñaareelu farata gi ñetteel gi nag mooy gaaw gaaw gi mooy boo defee benn bi rek benn boo def nga fexe ba teg ca beneen ba ca def nga toftale ko bul def benn toog ak diir di defaat ba ca toppaat waaye danga koy toftale boo defee benn bi rek def ba ca tegu boobu moo nekkoon ñetteel bi bu ñëwee ci ñeenteel bi nag mooy nga fexe xalil karaw gi sa sa gi maanaam nga fexe koo xàjjale daal boobu moo nekkoon ñeenteel gi bu dee juróomeel gi nga fexe ba ndox mi nga bu fekkente dangaa lettu nga bës ndox mi nga naj ko mu fexe ba mu dugg ci biir ndax ndaxte ki nga xamante ne dafa fireeku bu fekkee lettu woo ndox mi pour mu egg sa der bi ci la gën a yombee ki nga xamante ne ni dafa lettu moo tax ñu sopp bu fekkee dangaa lettu nga fexe ba bës ndox mi mu dugg ba ci ba nga xam ne laal na sa der gi ba nga xam ne laal nga sa der gi boobu moo nekkoon juróomeel bi farata yi nag faaw nit ki dag ko war a matale ci sangu setam bu fekkee léegi mais bu fekkente ni farata yi danga cee bàyyi ñett bu fekkente ni cee fàtte ñetti farata bu boobaa euh, sangu bi dafay daal di yàqu faaw nga dem commencé waat ko mais bu fekkente ni danga cee farata yi benn nga si bàyyi bu boobaa dangay dem ca benn boobu nga bàyyi woon nga nga daal koy yeggali kon sangu bi li koy yàq mooy bu fekkente ni bàyyi farata yi danga cee bàyyi ñett bu boobaa dangay dem commencé waat sangu bi nga yéene ak comme niñ ko waxee mais bu fekkente ni danga bu fekkente ni benn rek nga ci bàyyi boobaa dangay dem ci benn boobu nga bàyyi woon rek nga daal di eggale la ca des loolu moo nekkoon fa yi bu ñëwee ci sunna yi nag sunna moom dafa nekk loo xamante ne ni boo ko defee da daa ngi ci am ak yiw waaye boo ko deful it doo ci am bàkkaar maanaam benn daal du la ci fekk dafa bokk ci li rafetal jaamu yàlla sunna yi nag Euh, ñeent la bi si juutu mooy nga raxas sa loxo ba si takku jaray ni ngay laxas sa loxo ba si takku jaray loolu noonu sunna la ñaareel bi mooy nga gallaxndiku buñ nee nag nga raxas sa loxo ba si takku jaray loolu li muy signifier mooy nga xool ba xam ndax ndox mi niin na bu dee galaxndiku bi nga xool ba xam ndax ndox bi amul lu muy ba xam amul caf ko ndax amul lu muy saf ndaxte ndox bi ñuy sangoo farata dafa war a set te seel warul niin waaye tamit. warta am leneen lu muy saf bu ñëwee ci ñetteel bi nag ñetteelu sunna si mooy saraxndiku saraxndiku boobu itam li muy signifié mooy nga xam ba xam ndax amul xet ndax xet bi changé wu bu dee ñeenteel bi mooy massage ñeenteel mooy nga massage sa nopp bi ndox li fekk nga jël ndox mi di ko def sa nopp bi ba mu dugg si biir loonoo ci sunna yi la bokk boobu moo nekkoon ñeenteel bi kon ñeent yooyu benn boo ci deful du tax ne euh, tekkiwu ne dafay yàq sa sangu waaye itam boo ko defee dana gën a rafetal sa sangu bi waa itam dana yokk ay yiw loolu moo nekkoon sunna yi kon dafa mel ni yooyu lañ ci jotoon a tànk tënk ci faratay ak sunna yi kon bu ko defee xam naa dañu jox soxna jaara mu gën ñoo leeral li nga xamante ne ni mooy sangu set ak cos yi lan moo ko waral ñoo ngi bu baax nag si kàddu yi xaw a jaxasoo yi lépp lu si jaar yoon rek nga xam ni si ndimbalu suñu borom la waaye itam lépp lu si dëng ngeen xam ne suñu jëmm yu xeebu yi la asalaamaaleykum waa di nuyoowaat rek di waxaat asalaamaaleykum yàqul dara di delluwaat ci li nga xamante ne moo di lan moo waral ak lan mooy tax ñu war di sangu farata ñu gën koo xamee ci français ñu koy wax les causes li nga xamante ne ku mu dal ak euh, ku mu arrivé rek yow sangu farata daf la war buñ ko xaymaa mu ngi toll si sept wala huit ci buñ ko ci li ñu xayma rek euh, bi si njëkk mooy. jaxasoo góor ak jigéen jaxasoo góor ak jigéen bu ci man yu génnee wala mu ñàkk cee bañ a génn yépp tamit kooku sangu farata da koo war beneen bi si topp muy gént moo xam danga nga gént di sëy parfois day dal góor di dal jigéen boo yewoo ba gis sa kanam tooy yooyu noonu wala man yu génn ci yow kooku sangu farata te itam da koo war beneen bi tamit di seetaan loo xamante ni seetaan luwul nga si yëg sa bopp ba dara di génn ci sa kanam loolu boo nuppee da nga war a dem sangu farat te jàpp naa loolu sax mën naa ñàkk parce que yooyu mu day um doomu aadama ak euh, ci ki nga xamante ni day fooye boppam ñu gën koo xamee ci français ñu koy wax masturbation wala di masturbé wu ba dara génn ci sa kanam lu mel ni man yu wala ndox mu fara yooyu noonu kooku sangu farat itam da koo war muy ñeent ci sett yi ñu tënk beneen bi mooy jigéen bu gis mbaax koo xamante ni dafa day indisposé comme li dal soxna yëpp mais foofu dañ fay taxaw tuuti rek am luñ ci leeral euh, lu mel ni dafa am différentes personnes parce que ñun ñëpp yemuñu koor yi wute nañ nit ñi ku nekk ak ni nga gisee mbaax am na ñoo xamante ne par deux jours mën nañoo gis deux jours mu taxaw yeneen deux jours yi mu ñëwaat yooyu dafa bari différence dafa bari ay façon am ñoo xam dañuy gis ba quinze am ñoo gis ba quinze jours léegi ki nga xamante ne ni bosam day ñëw ñaari yoon di taxaw kooku heure bu taxawee rek dafa war a sangu farata heure bu taxawee dafa war a sangu farata bis bu deret bi ñëwaatee nag mu mu xam ne ngànt ñëw na bu arrêté waatee mu demaat sangu jiwaat am na si ñeneen ñoo xamante ne dañuy dem ba parfois ba 15 ba 10 yooyu yëpp si koori nit la parce que nit ñi bokkuñu ku si nekk ak ñu la suñu borom bindee kooku tamit bu toogee ba quinze jours yooyu mat bu noppee dafa war a sangu mais bu paasee li nga xamante ni moo di quinze jours euh, ci xayma quinze la war a yem mais bu ko ëppee rek dafa war a sangu te dem saytu ju doctor te xam ne dafa feebar mais deret boobu di génn nekkatul sobe mais feebar la. beneen bi si topp muy damul nifaas muy soxna su am tu tànk kooku itam foofu tamit dañ fay taxaw comme bële rek parce que dafa bari tamit façon buñ ko xaymaa ci lu règle bu normal normalement kooku un mois la war a gis règle muy 30 jours parfois mun na dem ba 35 parfois mu dem ba 40 loolu c'est normal mais damul nifaas mooy euh, deret bu bon boobu di génn warta passé 60 jours bis bu ko matee rek danga war a sangu farata bu dee ku am borom kër la bu ko borom këram soxlaa mu mu mu wuyu ko te mu xam ni deret boobu di li si topp di génn du ngant mais feebar la kooku tamit day dem seeta ji docteur beneen bi si topp mooy ki nga xamante ne dafa tuub dugg ci lislaam moo xam ni daa tuub ba noppi dem sangu farata wala mu sangu ba pare daal di tuub kon kooku sangu farata war na ko beneen bi si topp muy ku faatu ki nga xamante dafa génn àdduna kooku itam sangu farata da ko dañ ko ko war a defaral ndem yooyu la mën a tënk ci ni mooy cause yi ne ko doomu aadama bu ci bu ci arrivé rek yooyu yëpp sangu farata da koo war parce que dina lislaam sangu da cee bokk ngëm dafa bokk ci set sax suñu borom moo ko njëkk a wax moo ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutabashir kon seet dafa bokk ci ngëm ku setul mënoo jaamu yàlla ku setul mënoo dugg ci barab yu sell yi te ndax bu tilimee kenn du ci yàq yaakaar naa ko ba si exemple bi may jox jotaay kay nekk ak accueil pour ak accueillir nit ñi duñ jël ka nekk ca waañ ba parce que kooku mu ngi taq mais ki nga xamante ne dafa set di xeeñ neex kooku la ñuy jël teg ko ndax mu mën a accueillir nit ñi ndéem ay doomu aadama la ñuy mën a accueillir noonu ma sama laak suñu borom mi nga xamante ne mooy ki ñu bind sàkk ñu kon kooku ku war a jëflante moom danga nga war a set sell ba si jàngum alxuraan muy kaamilu alxuraan yi ak ci xasida yi parce que alxuraan dafa wax ni laa yamassuhu illal mutahharuun ku setul duma laal kon set dafa bokk ci jaamu yàlla bu ko defee ñu jublu si li nga xamante ne nii moo di ana nan la ñuy sangoo farata fan la ñuy tàmbalee ak ba fan la ñuy euh, yem foofu itam dañuy taxaw rek parce que sangu farata dafa bari dafa bari ci xayma war mën na nekk ñett wala ñett façon am na mais ci bi ñu tënk tey mooy di njàngaleeb sëñ Tuubaa gi ndax moom yaakaar naa ni moom ba doy nañu sëkk ak barke kon mën nañoo yem ci njàngaleem mu lii njàngaleeb sañ bi ci mu jublu ci nga xamante ne moo di téere Imaam Malik kon bu ko defee dañuy jéem a wane nan la ko ku tedd ki jàngalee ci téere mi soxna Nday teel ma ma leeral dugguma nag day amee di leeral rek nan la ñuy sangoo farata ni ko sëñ bi jàngalee buñ fi defee buñ wanee bi sëñ bi def nag bu ku jàpp ni nag la nga doon def baaxut mais jàngale dafa bari façon moom laa lay leeral moom laa leen doon leeral pour wax leen exactement li ci li li sëñ bi jàngale moom bi muy def bi si jiitu mooy dangay raxas sa loxo ñetti yoon parce que sobe dafa sew raxas sa loxo ñetti yoon ci biir ak ci biti mais balaa ñuy dugg ci sangu farata ji dañuy wax ana fan la ñuy sangoo farata ak lan mooy sangu bu ñuy dugg euh, li jiitu mooy sangu farata ñu koy defee ci douche ci li nga ci li xam ci douche wala barab boo xamante ne nii rek fermé wu te ñëpp xam ne kuy dugg si douche da nga war a muslu kuy dugg si kër da ngay muslu kuy dugg ci sa néeg da ngay muslu kon kuy sangu faratam ci douche dañ koy defee mais kuy dugg si douche dañuy faral ngay muslu ci seytaane di wax baat bi allahumma inni auzu bika minal xubusi wal si ñu leeralaat ko allahumma inni bi ka minal xubusi wal xabaa'isi bu ko defee nga dugg ci duus bi te bis booy dugg na nga jiite sa tànku càmmoñ boo duggee ci duus bi nag lii sangu farata mooy ndox te pour sangu bi set faw ndox mi laab te mën nañ ne ndox mu laab te itam bu waree mën a laabal ndox mi melukaay la warta soppeeku cafkaam ita warta soppeeku te bu ñuy sangu nañuy jiital toujours baatu bismillah parce que mënoo def dara temps nga jiital ci turu ba sàbbal suñu borom ndax dañ ne bismillah ci tour yàlla lay tàmbali lépp lu may def ak lu may wax mën ngaa jël nag am na ñuy sangoo satala am na ñuy sangoo siyo am na itam ñi nga xamante ñoo am charge bi si njëkk mooy dangay raxas sa loxo ñetti yoon biir ak biti raxas ba mu set pour bañ koo dugg si paan ñi nga xamante ne paan yi bañ ko dugg ci euh, ci siyo bi muy am sobe ndox mi di yàqu dangay raxas sa loxo ñetti yoon soo nuppee nga raxas sa jumbax di ko dalee sa jumbax ba ci sa oom mais foofu la ñuy dugalee yéene bi raxas sa kanam itam ba mu set ci biir ak ci bit ci kanam ak ci ginnaaw ba mu agsi ba si oom yi ñu bamtuwaat ko boo raxasee sa loxo ñetti yoon raxas sa jumbax ba ci say oom nga raxasaale sa kanam ci biir ak ci biti te fi ngay raxasee sa jumbax foofu ngay yéenee comme kii wax na ko sànq yéene du lu nuy wax xol la ak xel jarul nekk ci dus bi di yuuxu naan dama yéene sangu farata jaru ko danga koy wax ci sa xol danga koy euh, tibb ci sa xol wax ko ci sa xel soo nuppee nga def njàpp benn bennal am na njàppal am na ñuy def benn benn am na ñaar ñaar am na itam ñett ñett ku si nekk bi nga jekku njàpp benn benn mooy dangay raxas sa loxo benn yoon raxas sa gémmiñ benn yoon raxas sa bakken benn yoon nga daal di sëlmu benn yoon raxas sa loxo ba ci conco bi benn yoon defaat ko noonu ci loxo càmmoñ bi benn yoon ñëw ci masaa bopp bi nga dem dem ak dikk booy masa sa bopp dem ak dikk boobu dañuy jàngale ci science ñu ne boo defee euh, boo euh, yóbbee sa bopp si loxo si ginnaaw nga indiwaat ko daa am poor yu ubbeeku ci bopp moo tax boo tijjee boo xasee ba tijji nii dañuy wax nga tëj ko léegi bu ko defee da ngay jël ndox ndax loolu rek kaw gi moo tooy mais biir gi des na léegi da ngay jël li nga xamante ne ndox mi nga tànk ci sa loxo nga maap ci bopp bi si biir am na si ñoo xam ne seen karaw yi dafa bari foofu dañ fay appuyé bu baax pour nit ki. na si bu fekkee kii nekk xam dafa yor satala moom mën na def noonu mais ki nga xamante ne dafa am chasse moom mën na tiimale boobu di raxas ba mu leer na ko boobu yëpp tooy na bu tooyee xib bu dee tamit ki am satala da def ba mu mat ñetti yoon muy maap ci biir di bës ba xam ni lépp der bi tooy na biir karaw gi tam tooy na foofu tamit dañ fay taxaw tuuti parce que ngay dégg kii naan kuy sangu farata da ngay firéekoog wala ngay léttoog yëpp l'essentiel na boobu tooy lenn daal lañ xam ni moo sanguwut muy mèche lépp lu yokk mees ak leen ñoo ci yem kuy sang ku bëgg sa sangub set moom bu fekkee nga léttu mees na ko firi leen na ko firi te dese karaw gi kaset fexe ba lépp tooy ñu delluwaat ci dangay raxas sa loxo benn yoon galax benn yoon sorox benn yoon sëlmu raxas sa loxo ba ci conco bi def ko noonu ci càmmooñ gi masaa sa bopp dem ak dikk te nga maam si biir ba bopp bi yëpp tooy soo nuppee nga raxas sa nopp biir ak bit dañuy faral di wax sax dangay dànk ndox loxo sa loxo bi nag si def ndox nga yóbbu gauche nii yóbbu sa bopp càmmoñ ba ndox mi dugg si biir nga def nii mu génn ndax biir gi set te raxas sangu dafa bomb da cee bokk waxuñu la ngay raay raayal dangay bomb nga bomb si biir ak si bit nga defee ko noonu ci nopp càmmooñ bi boo noppee nga raxas sa baat boo defee njàpp benn benal gi ba nopp bi si topp li sëñ bi jàngalee bi si topp mooy dangay raxas sa baat ci kanam ak doq bi ci ginnaaw nga raxas ko ba mu set bomb gi itam lu am solo la ci nañ bàyyi di raay nañuy bomb mu gën a set suñu pee ci njàpp benn meddal gi raxas sa baat soo pare da ngay xaaj sa yaram ba ci oom bi nga raxas côté yeeg suufu ween yeeg yëpp ñi nga xamante ne macha allah kat ziga lañ ñuy génne yi lemu di lem di raxas nañuy boobu mun a fépp tooy sam set fépp war a tooy ba ci oom bi bu ko defee noonu nga defaat ko si beneen côté bi ci càmmoñ bi côté yëpp tooy bul bàyyi dara lii pooj beeg yépp na nga booboo soo numpee foofu boo raxasee sa jumbax daf njàpp-njàpp benn bennal bi raxas sa baat ba xaaj sa yaram ndem fii nga ko yemoon dangay àggale soo paree ci ñaari côté dangay àggale ci oom bi ba mu wàcc ba ci baaraamu tànk yi bomb ba mu set ci ndeyjoor bi ak ci càmmoñ bi mu mel ni li si des bareetul mais damay delluwaat pour mu gën a leer soo raxasee sa boo raxasee sa loxo ñetti yoon raxas sa bëtu jumbax bi li ko wër ci biir ak ci biti fa nga fasee nga yéene fa ba ci say oom nga def njàpp benn bennal raxas sa baat xaaj sa yaram ba ci sa oom bi xaajaat sa benn côté bi ba ci oom bi nga tàmbali fa nga yemoon nga àggale ko ba ci baaraamu tànk bi def ko ci ndeyjoor ak càmmoñ soo paree nga raxas sa ndigg ginnaaw li ginnaaw gi nag am na ñoo xamante ne nii seen loxo jotut mënuñu mënuñu di def ni seen loxo yi parce que cër yi nu ute daloo ute bokkul kooku may nañ ko mu jël ñàmpe mais balaa ngay utiliser ñàmpe bi danga koy raxas ba mu leen ni amatul saabu nga koy bombee sa ndigg ginnaaw gi ba mu leen ni yaa ngi bomb fépp boo paree nga sotti ndox te itam di di fàttali raxas bi dafay ànd ak sotti du dangay ñëw rek jël sa loxo bi di bomb nii dangay sotti di bombaale ñoom ñaar duñ ñaar loxo bi dañuy liggéey mais du da ngay sotti ndox rek bàyyi rek di bomb mais da ngay sotti ndox di bombaale en même temps soo raxasee sa nit ginnaaw ba noppi nga ñëw si biir bi biir bi itam nga raxas biir bi ko dalee si naq li côté faar yeeg yooyu yëpp raxas ba mu set ñi am yaram yi nañuy lemmi di raxas si biir ak ci bit buñ paree si biir bi ñu dem ci ween yi comme ci dënn bi daal ñu yëkkati partie intime yi <laughs> di ko raxas yooyu yëpp nañuy nañuy nañuy fexe ba ba cër yëpp tooy ba cër na cër yëpp tooy jàppal naa ni loolu moom mooy sangu farata loolu la bi si njëkk mooy raxas sa loxo ñetti yoon yéene yaa ngi koy tàmbalee ci li ngay raxas sa jumbax raxas ko ba ci say oom li si topp mooy njàpp benn bennal bu kum neex mën nga def ñaar kum neex mën nga def ñett kum neex itam mën nga def benn soo paree nga raxas sa baat ci kanam ak si ginnaaw soo paree nga xaaj sa yaram ba ci sa óom xaajaat beneen ba ci óom bi soo paree nga àggale fa nga yemoon ci óom bi nga raxas ko mu àgg ba ci baaraamu tànk yi def ko noonu tamit itam ci tànk càmmoñ bi soo nuppee nga raxas sa ndig ginnaaw ñi nga xam sa loxo jotut mën nañoo jël ñàmpe wala ak nu munti doon la nekk lu set loo xam dina mën a bomb di ginnaaw bi soo paree nga raxas sa biir raxas sa dënn loolu moom mooy sangu farata bi sëñ bi digle soo paree am nga sangu nga set nga ba noppi am nga njàpp léegi dara desul du génn douche moom yaakaar naa boo sangoo pare moom génn rek a ci des te kuy génn itam ci douche ba ngay dugg muslu nga kon bii booy génn da war tam tàggoo tam booy génn rek di musluwaat ci booy dugg da nga doon wax allahuma indi a'uzu bika minal xubusi wal si ku ko mënul itam mën nga ne yàlla na ma yàlla musal ci seytaane bu góor ak bu jigéen wala seytaane bu mag bi ak bu ndaw bi léegi booy génn dangay wax xufraa nag ba ngay dugg sa tànk càmmoñ nga jiitaloon sooy génn sa tànku ndeyjoor la ngay jiital moo xam douze cabinet bi ak douze sankaay bi ñoo yem douze ku fay dugg da ngay léemu du nga jiital sa tànk càmmoñ booy génn jiital sa tànk ndeyjoor nga wax xufraa nag léegi ki nga xam sangoon na seet ba mu nuppee kooku su paree mën na dem julli directement su fekkee si diggante bi njàpp tojo li nga xamante ne mooy toj njàpp ñëpp xam nañ ko bëgguñoo dugg ci domaine boobu parce que waxtaan bi sangu farata la lii toj njàpp bu la dalul si diggante bi mën nga dem jàpp mën nga dem julli ji kon jàpp naa ni leer na bu dee dañ fee wax tamit lu ñu fàtte itam ngeen fàttali ñu ndax ay doomu aadama dong lañ di tuubaat foofu te wàccee kàddu di wax li fi jub ñu xam ne suñu borom la li fi dëng itam ñu xam ne jëmm ju doon wax moom matali néew xam-xam di am ci lu may appuyé wu di tuubaat bu baax bu ñuy am kersa di gëstu bu ñuy am kersa di gëstu suñu diine parce que boo dul gëstu rek am na yu bari doo ko xam te islam saay bu xëy rek dina am lenn loo mën a jàng moo xam lu jëm ci yow wala loo xam ci ci diine la bokk gëstu dafa bokk ci doomu aadama xam-xam dafa war góor ak jigéen lu la nga toog rek ne aw ma âge bi aw ma ko du ma ko rek du ma jaay nga jë wala du ma ko laajte wala du ma dama am kersa wax yéen nii boo amee kersa laaj ko saas bi nga xamante ne góor la koñ nga ñàkkul koo xamante ne nii jigéen la ku aluwam lii kooku nga dem mu wax nga waxtaan seen moom mu leeralal la bu dee namit itam sangu farata ji ñi ko daan defee nii daanuñu ko defee nii wala ñu xam ne lañ daan defee baaxul bu boobaa da ngay yéene ci sangu farata bi nga doon far sangu yéene ko yéene ci yi nga daan di ko def mu lenn ni baaxul parce que xamoo woon boobu mais ndem xam nga nag léegi nag na ko defee ni nga ko waxee te nga yéene ci yi nga xamante ne juumoon nga nga yéene si ci ci yu paase woon kon ñu wàccee foofu kàddu yi bu fekkee leer na am ay question yu ngeen mën a laajte ngeen lii ko parce waxtu bi li des bareetul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf soxna jaara soxna Xadi daf mel ni njàngale mi sell na te leer na bu fekkee da ngeen a am contribution wala question yoo leen bëgg a posé bismillah ñu ngi leen teewlu. kon soxna Joor bismillah soxna Joor Njaay ñu jublu ci question yi ñu jublu ci réponse yi nga xamante ne mbooloo mi nañ ko première question bi nekk li nga xamante ne kii mu ngi laajte booy sangu booy sangu farata ba ndox bi tiis ci satala bi est-ce que ndox boobu laab na wala xam naa dañuy bàyyi soxna jaara rek mu daal di tontu loolu bismillah waaw booy sangu farata ba ndox mi tis ci ci ci ci siyoo bi nga doon sangoo wala ci satala bi foofu dañuy wax nga prudent rek parce que ndox dafa dafa dafa sob mën nga ko sax bañ a gis bu dee siyoo la fexeel nu mu la xaw a soree bu dee satala itam nanga ci ut kubéer nga tëj ko bu dee ndox mi parce que mën nga mën na la sori sax mu tiis mu dal ci te doo ko yëg mais li si li gën daal mooy booy sangu ndox mi na la sori na la xaw a sori ba nga yor sa po pot di tànk di sangu waaw loolu lañ si woon a leeral ci côté boobu. bu dee itam bàyyi nga si xel ni ba gis ni ndox mi laal na ko ba leneen ndox mi nga doon sangoo tis na si wala mu sotteeku ci boobaa na nga changé ndox mi moo gën a wóor parce ndox mu laab moom. mooy loo xamante ni melokaanam soppeekul itam ca cafkaam soppeekul ba tamit ñu ngi ci deuxième question bi kii tamit mu ngi laaj ba xam sangu saabu ak sangu farata ban moo war a jiitu ndax nee na ndax nee na dafay dégg ñu naan saabu sobe la waaw sangu farata ak sangu saabu ci li ñu ci li ma jàng te gëstu ko te ba ci avant maa ñëw mooy gi a ñu ni na nga sangoo saabu ba noppi ngir nga wàññi sobe gi nga wàññi sobe gi nga sangoo saabu ba pare soo paree nga sang nga door di sangu farata parce que boo sangu booy booy sangu saabu gi ak lii bi yaa ngi raxasaale sa partie intime yi nga xamante ne nii sobe gi mën na fa laqatu te doo ko gis parce sobe mën naa ne comme microbe la mën nga ko sax bañ a gis yooyu tamit ci li ma gëstu man mën nga sangu saabu ba noppi soo paree nga mujjee sangu farata ndax soo paree nga mën a dem julli ji directement. ñu ñëw tamit ci troisième question bi moom dafa mel ni dafa laal première question bi moom mi ngi laajte tamit ba xam buy sangu ba ndox bi siit ci soo bi est-ce que ndox boobu mën na ko continuer sangoo walla. ñooyam rek àtte bu dee dafa siit ci ndox mi ba mu nga gis ni ndox mi nga doon sangoo daa sotteeku ci ndox mi nga teg boobaa changé ko parce que dañuy wax ni fi ngay raxasee sa loxo sax balaa ngaa dugal sa loxo ci siyo bi danga war a raxas sa loxo ñetti yoon pour génnee sobe gi kon bañ ndox mi tilim di dugal sa loxo ci ndox mi ndox mi di tilim moo tax ñu naan sa loxo ñetti yoon ba mu set ba mu lenn ni sobe gi dañ na nga soogee tànk ak sa loxo mais fekk yaa ngi sangoo nga sentir na ndox maa ngi sotteeku rek ndox moomu changé ko moo gën a wóor question 4 bi kii tamit mu ngi laajte ba xam buy buy sangu est-ce que c'est permis mu sangu njàmpe ba pare soog a sangu farata. yow ya yow yow mi sa jëmm bopp yaa xool rek mais li gën mooy nga sangu ndox ak saabu ba nuppi parce comme li wax léegi rek dafa am pâte yoo xamante ne nii lii bi dafay nëbbu sobe gi mën na fa nekk. te man ci yi ma gëstu yëpp yi ustaas yi di waxtaane yëpp dañ ne nga jiital sangu ndox ak saabu ba pare soo paree nga mujjee sangu farata xam moom ngay tëjee nga génn douche bi boo demee di nga mën a julli jàkkaar naa ne leer na. ba tey cinquième question bi kii nee na est-ce que on peut dire bismillah ci biir douche bi. c'est permis kay bismillah fépp nga koy wax ji fépp booy sangu farata ndox mi ngay tibb balaa ngaa tibb di wax sax fi ngay yéenee ko bismillah ngay wax. bismillah mooy ci turu yàlla lay tàmbali lépp lu may def ak lu may wax kon foofu ngay def yaa ngi jëf. kon bisimilah dafa war. muy mel ne question yi jeex na kon njàngale mi defe naa ni leer na ci côté yëpp soo leen amee tamit yeneen question ñu ngi leen di déglu balaa ñuy tëj. wala laata boobu ñu jox euh, ki nga xamante ne mooy Soxna joor euh, ci contribution yi bisimilah. salaamaaleykum rahmatullah maa ngi nuyu mbokk soxna yëpp. di ñaan sëñ Mountakha xalif général kulli murit yàlla na fi yàgg loolu te wér Serigne Saliou Touré yàlla yàlla yokk leeram xanaa day nekk kàddu yu mënta ñàkk rek ndax day mel ni bokkul woon bokkul woon ci programme tay bi mais dafa am benn partie bu boo xamante ne da bëggoon naa ko bu baaxee mbokk soxna yi muy mel ni ñëw ci daara yi indaale yiw ñëw ci daara yi sol colin gu baax wala ñëw ci daara yi indaale yar ak teggin fonk jëwriñ ni aj leen fu kaw lu baax la lu ñu lu ñu naw la te lu ñu fonk la ci yoonu murit waaye tamit ndax na nga mel ca daara ji noonu nga mel seen kër question bu ñu war a posé wu la. parce que damay faral di dégg lool ci sëñ Abo Touré mu naan su ma demee daara ci seeni kër li ma xam ci yéen dinaa ko seede waaye ndax li ma xam ci yéen loolu la seen waa xam ci yéen ndax man li ma xam ci yéen loolu la seen waa koñ xam ci yéen. donc kenn ku ci nekk la ngay wane ci daara ji boo demee ci école ba bu ko rusa wane ndax col yi ñu am. ak suñu robb yii ñu am di ko sol ñu ñu da ngeen a mee rek da ngeen a mage ñun de moom la ñuy sagoo dëgg la nag di sol tubéy di sol lu gàtt dafa neex de parce que kenn ku ne dangaa bëgg ñu naan la sa génération macha allah yow de comme ni ko xale góor yi di waxee wala ni ko ni ko ñenn ñi di waxee ci mbedd mi dangaa mool yow de yaa ngi caax dëkk bi de yaa ko téye yaa ko téye ci lu bon ndax ñun ñii de ñu ngi sol suñuy robb di lëfër lëfëri mais fierté la si ñun ndax tey jii nii bu ñu taxawoon ngay jullit nga so def sa cheveux naturel so sa jiin taxaw ñun ñu def suñu kol taxaw donte de nee nañ ibaadu yi ñoo gën a bàndi comme ni ko benn soxna waxee sànq ni loolu la ñu dëkkale naan ibaadu yi ñoo gën a bandi ibaadu yi ñoo a mën a def naka sudul noonu waaye au moins ibaadu yi ñoom ñu gis ngistal ci lu baax ndax kan ngistal ci lu baax suñu borom mën na laa fay ka nga ngistal ci lu bon tey jii muuraay gi nekkul loo xamante ni dañu ko suñu papa moo ñu ko obligé wala suñu jëwriñ daara moo ñu ko obligé déedéet yàlla suñu borom ci boppam moo ñu ko obligé en tant que soxna jullit kon mën naa ne muuraay gi mooy suñu identité mooy suñu carte d'identité tey jii nii fu ñu mënti taxaw nga sol sa muuraay gi kenn du la laaj ndax jullit nga donte julli woo donte wóoroo ku la ni jàkk dina xam ne yow miy jullit nga kon muuraay yi nañ ko gën a fonkaat bu baax a baax a baax du soññe nag ci benn côté boo xamante ni daf ma tenir à cœur lool muy fédération Majmahun Nurayni dañoo xam ci fóotu ndongo yi te fóotu ndongo yi mujj yëpp mën naa ni soxna yi ciy teew matuñu sax diis te fédération Majmahun Nurayni soxna yi fi nekk mën naa ni ëpp nañu 100 ëpp nañ sax 100 mën naa ne ëpp nañ sax 200 donc fóot mi nekkul ni fóotu soxna Joor la nekkul ni fóotu soxna Jaar nekkul ni kenn la fóotu fédération bi yëpp la donc bu fóot mi ñëwatee jëwriñ bu nekk na ci xar tànk tubayam bu mënul ñëw tamit mu yebal sax au moins cinq éléments deux éléments sax bu ko yebalee ci 17 écoles au moins dinañ am ñaata éléments fourni ba ñu taxaw donte suñu ñëwul dinañ ko def ndax sëñ Baara doon na wax naan su ngeen ñëwul sax góor yaa def ko donc ñun lañ ko ñun lañ ko cëralee nekkul ni dañ ñoo faral ñu cëralee ñu ko def mais fay ga ñun ñoo koy am ndax sëñ Saliou Touré musul woon nangu keneen jël liggéey boobu noonu kon buñ ko cëralee wee rek am na lu tax donc maa ngi ciy soññu soxna yi bu baax a baax a baax di tubaab bu baax ci kàddu yi ak guddeel gi jaa ngeen jëf jërëjëf soxna joor kàddu yi am na solo kon xam naa si beneen point bi nga xamante ne waxoon nañu rek ñu laal ko mooy bu fekkee dangaa jóge sa kër sol sa laxasaay nga ne dangaa ñëw daara nga xam li la fi andi ak li la war soo paree nga dellu si li nga nekkoon loolu sa problème la mais ngeen bàyyi nekk si daara ji ngir que ni bul ñëw si daara ji rek ne yow sa xarit bu góor bii mi ngi fi wala sa copain mi ngi fi loolu day suuxal liggéey bu baax sax en plus loolu dafa nekk image boo xamante ne dafay yàq dafay dafay yàq image daara ji donc soo ñëwee fekk fi ñoo xamante ne ñoo la fi jiitu di wéyal liggéey bi toppal seen ginnaaw mais bul ñëw fekk ñoo xamante ni ñi nga ñi ngi wéyal liggéey bi si lu jaar yoon yow nga ñëw topp sa benn copain bu fi nekk wala nga topp sa benn xarit bu góor bu fi nekk wala nga topp say xarit yu fi nekk commission bii lañ la teg nekkal foofu suñ jugee foofu boo leen waxtaan loolu seen problème la mais bul nekk fii bëgg a cuut càpp feenee yooyu yëpp euh, defe naa ni kii nañ ko ràññee nañ ko bu baax moo tax point yooyu ñu ne woon nañ ko laalaat bu baax a baax te ni ngeen yiwee nii macha allah ngeen koy nekkee seen koñ yeeg seen kër yi kàddu yi aussi ni ngeen koy wàccee fii jël seen joorin teg si kaw ngeen koy def seen kër yi te li nga xamante ni mooy euh, wàllum colin gi jëfin yi xol bu rafet bi bëggante leen seen biir bëggante leen seen biir di saxoo di tuubal seen borom tey baalu seen morom ndax yàlla moom defe naa loo ko tooñ tooñ tooñ boo ko boo delluwaatee si moom baalu ko mu baal la moo ne tuubu ilallaahi jamian ayyuhal muminuun kon dee leen tuubal borom bi subhaanahu wa taala ndax moom si boppam mi ko wax sa xam na ni ñun dañoo bari bàkkaar kon loolu lañ leen àndiloon tey mu nekkoon li nga xamante ni mooy euh, ngontu soxna jaara yi di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xamante ni ñooñu topp si muy si réew mi wala si bitim réew topp suñu chaîne Majmahun Nurayni TV ñu ngi leen jaajëfal bu leen fàtte abonné yi aimé yi ak partager suñu vidéo yi di jaajëfal itam suñu soxna yi nga xamante ne ñoo nekk si équipe équipe technique bi di suñu cadreuse yi wala suñu monteurs yi kon wasalaamualeykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf am yakumil mustafa muhammadi siran wa jalan fil baraya samadi lam yakumil mustafa muhammadi siran wa jalan fil baraya samadi